tàmbale ko si jigéen ñi parce que tey ce les femmes qui sont à l'honneur tey bés bi màgg bés bi rëy parce que li ñu waxtaan daf am solo waxtaan mënu ko tënk ci benn kàddu rek bu mu jëlee la loi 2020 criminalisant le viol et la pédophilie mu avancée majeure boo xam ne moom la jigéenu Sénégal am parce que am na ko wax léegi nee na partout dans le monde dafa na avancé boobu dañ ko magnifier ñu xam ne réewu mi Sénégal lu avancé bu am solo la ci jigéen ñi ndax jigéen ñoo nekk au centre du développement de notre pays te lépp loo xam ne leen gàllankoor la dañ ci war a jug taxaw ci ñu wax ne nag wax nañ ko léegi dafa doy dafa doy parce que nag yaakaar jafe-jafe yi bari si jigéen ñi waaye particulièrement les violences basées sur le genre gis nañu partout dans le monde nag phénomène bi du seew Sénégal rek la am féppal am ci àddina bi parce que dama naan sax booy seet lu ànd ak ñun la waaye yaakaar naa ne lu métti métti bu si ñëpp jógee ànd na tous les acteurs commencé ko suñ jigéen ñi les états la société civile tous les acteurs jógee mobilisé wu pour lii mën a jógee fi reculer bu baax yaakaar naa dañ ci am ay résultat yu am solo te nag lu am solo la parce que jigéen ñi nag. ñoo ne ci biir kër yi ñu yor famille yi ñooy taxaw ñoo dimbal seen njaboot kon yaakaar naa bu ñu taxawee ba dëgër am seen autonomisation lépp loo xam dafa leen di gàllankoor seen taxawaaye mën a bañ dëgër ñu fexe ba loolu dellu ginnaaw def naa loolu dina tax réew mi jëm kanam bu baax a baax te nag son excellence présent président Macky Sall dans sa vision de fair du Sénégal un pays émergent fàttewul ci jigéen ñi teg leen au cœur de son programme de développement teg ko nag acte bu prioritaire dans le plan Sénégal émergent mu ne jigéen ñi dañoo war a jàppale dañu war a xam seen ay droits dañu war a fexe ba ñu am autonomisation économique dañu war a renforcer seen leadership ba ñu taxaw bi ñu war fi ñu war a taxaw pour que jigéen ñi jëm kanam pour que réew mi Sénégal jëm kanam parce que ñun nag saa ñun yaakaar naa réew mi di jëm kanam loolu nag tey jii ñu am ci nag lu ñu lancé suba mu journée de lutte journée internationale le genre commencé lancé le séjour d'activisme pour que jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi wax nañ ko léegi maa sœur Oulimata Sarr wax na ko léegi ñu ngi ci woo góor ñi nag parce que nag jigéen ak góor ñoo bokk fi ñu jëm bu ñu jigéen ñu jàppalewul bëgguñu taxawal suñu kanam dimbali ñu ci li ñu nekk def naa loolu du mën a nekk def naa moroomu góoram war na mën a wax moroomu góoram moroomu jigéen war na wax moroomu jigéen waaye nag pour communication ak sensibilisation soxla nañ ci góor ñi ñu ànd ak ñun ci ñun ci base bi waxtaan ak ñu war a waxtaan pour que vraiment fléau bi disparaître bu baax baax ci réew mi kon sant bu baax di gërëm bu baax di remercier tous les partenaires yi fi toog yoo xam ne ku ci da nga bàyyi sa ittee di ànd ak ñu ci liggéey bi remercier les associations de la société civile les groupements de femmes et tous les acteurs qui sont mobilisés à la base bu ànd ñu ci liggéey bi je pense que ñu remercier ñëpp di remercier la presse et les communicateurs traditionnels parce que tous les acteurs sont mobilisés les imams communicateurs traditionnels yi les bàjjenu gox sage ku nekk ci communauté bi daal am ci loo représenté woon nañ la ci mobilisation bi ci vulgarisation loi bi cette stratégie on l'a lancée aujourd'hui pour vulgariser cette loi elle est importante parce que pour ñun naa ni Nior ni président waxoon rek la peur va doit changer de camp pour que ñi nga xam ne ñooy def acte yooyu mën a dellu ginnaaw mën a xam ne bu leen xaar ëllëg lu metti la ñu moytu ko bu baax a baax loolu mooy bésu tey bi ko ñu sant bu baax di gërëm bu baax ñëpp di wax nañ ñaan yàlla suñu borom solo parce que li ci ëpp solo aussi moo ñu am tamit ay statistiques parce que defe naa ni ba tamit te xamoo ñaata lan nga ci am ak foo ci bëgg a jëm objectif yi nga war la fan nga ci war a jëmee dafay am dafay sooxee ñu bëgg nag xam balaa déwén ñu am ay statistiques yu fiable xam nombre de violence yi kan lañ ko def nan lañ ko defee ak fan ko defee pour ëllëgam suñu mën ko faj parce que balaa ngay faj dara lan moo ko lan moo tax loolu am loolu nag ñu ci war a liggéey ànd ci partenaires yi remercie aussi les partenaires qui nous ont aidés pour la traduction de cette loi parce que loi bi aussi je pense que nit ñi Sénégal ñëpp jànguñu école ñëpp dégguñu français mais dañ ko traduire en 14 langues nationales pour que Sénégal yëpp xam ne loi bi elle importante parce que jigéen ñi ñoom lañ soxla ku leen aar taxawu leen mettre dans le lieu sûr la gëm seen taxaw doon li ñu doon kon maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax ñëpp merci